la ilaha illallah la ilaha illallah fal la ilaha illallah la la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah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 xañ seen carte eddu ko ma dégg ñoom détenus yi nag seen wax lu si ëpp mooy nañ leen jàppale si wàññi pen yi xañ na yàgg nañ ma ko wax waaye gis naa ne mel na ne insisté nañ si tey jii ngir nu dimbali leen loolu <clears throat> li wax ne loolu nag ñi koy jooytu bari na ndax eh, bari na ñu baree bari seen i dossier ci si biir bañ leen waree atte attewuñ leen wala àtte bi yeex na lool te man dama see am benn xalaat damay wax ne kaso yi waxtu wane nuy wax ne dafa fees te am na si ñoo xamante ni xañ ne ku jërul lu jërul nuy tëj nit kaso euh, amut ndax ku ñu tëj kaso rek am na lu tax ñu tëj ko waaye am na yu gën a mën a woyof am na si ñoo xamante ni lanu def mën nañ leen a jël yóbbu leen ci ay tool nuy liggéeyal réew mi su matee nu génn dem seen kër loolu gëm naa ne état bi war na see gën a mën a xalaat bu baax a baax a baax tey it lu jëm si wàllu pen yi luñ siy gën di mën a woyofal nu di ko def ndax loolu mel na ni seen yitte la te ñun seen yitte la ñun ñi di fekk ngir ñaan ko jottali leen ko président de la nga xam ne na ko baax la. loolu moom loolu moom euh, xañ na ñu di ko waxtu wu ne rek nu comme ni ñu ko waxee léegi lu ni euh, comme ñoo ngi def appel ñoom ñoo ngi yëg appel bi suñ leen dénuré rek lu ñaaw la ñuy def. ndax euh, ñoom euh, ñoom ñoo yor seen lépp kon bu ñaanee appel war na noo gën a mën a wax ak ñoom ndax euh, buñ sañoon daal appel yi di gën a ñuy gën a ñuy gën a ñu leen di gën a bàyyi xel daal bu baax a baax ndax seenu nekk nit nag ndax kaso moom du dëkkuwaay. ñu nekk si biir waaw ah, xanaa nu gën a muñ rek te xam ne fii nu nekk nii. jombul kenn comme ni ñu ko waxee woon sànq jombu ma mën mi fi ñëw jombu ñoom ñi fi ne kon nañuy laabirante di waxante tey góor-góorlu te xam ne ñoom ñi ngi fi nekkal benn lan fas yéene euh, muñ muñ rek laa mën a am lu ma wax muñ rek laa leen mën a wax nan gën a góor-góorlu si muñ euh, xam ne euh, te nan leen gën a jàppale daal bu baax a baax loolu rek laa am si lu may